alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalin wa ala alihi wa asxaabihi alxurri almayamin wa man ittabiahum bi hudaahum wa ixsaanihim ila yowmi albaasi wannusuur mbokk yi ñu ngi ñëw ak yéen ci suñu ñetteelu tomb ci seen émission shukran di leen ko jagleel fii kulli zamaani ramadan ci bépp jamono weeru koor di leen ko defalit nag ci seen fi ngeen ko daan amee di fi am yëg-yëg ñu ci dakar midi point net bi fadilati sunu kilifa alxasan seen alcheikh ayadahu llahu wa nasarahu euh, di sant bu baaxit nag bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jotaay ci internet bi ak ci yeneen kër yu jottalikukaay yi nga xam ne mën nañ ci jot ay xabaar lépp jëm ci loo xam ne mi ngi tasaare daawa sallallahu alayhi wa sallam bi émission bi dañuy dippee ko sukran mooy sant yàlla mu di lu war jaam bu ne nag ndax yàlla nee na la in shakartum la azidannakum foofu dafa jëfandikoo laa mu xasamiya moo yàlla def ne su ngeen ma santee waat naa ne danaa leen dolli kon nag mbokk yi émission bi sant yàlla lañ ko tuddee kon képp ku koy suivre nga sant lañu yàlla Euh, ñu dikk ak yéen nag ci seen ñetteelu tomb ci li yàq koor mbokk yi koor dafa sacré wax nañu ko sànq euh, bokk na ci li yàq koor mooy ñàkk yéene yéene ju sell bi ngay dugg ci koor gi parce que dañuy wax ne borom bu toll ni subhanahu wa taala ubbil la fukki fan yoo xam ne daf la ciy xool bëtu yërmande ubbil la fukki fan yoo xam ne daf la ciy xool bëtu njéggal ubbil la fan fukki fan yoo xam ne dana la ca goreel ci safara loolu képp jaroon ni nit ñi di xiif ak a mar même buñ ci suñ bakkan doon de sax jaroon na ko mu bokk nag ci yiy yàq li mu ñu sant mu ñàkk jubluwaay koor da koy def yëg ni am na ko la ko sant te mi ngi lay fuglu foo mën a toll moo tax yàlla waxoon ni abdi lam yashkur nii sama jaam bi du ma sant mukk su fekkee santul ki ma jaarale ci moom xéewal kon xéewal gi mu ñu def mooy weeru koor ñu ngi koy ci sant bu baax yàlla wax ne as-sawmu lii wa ana ajzi bihi koor maa ko moom man yàlla te maa koy fayal sama bopp eh, da ngay yëg ni julli yàlla boole wu ñu ak kenn ku nekk da ngay def bi xadri taaxatika rek mooy sa kenn kàttan nga yëg ne aj màkk activité la da ngay dem defal sa bopp nga yëg ne azaka boo amul alal du la war waaye koor moom yàlla daf ñu génne naa ci ñëpp maa koy fayal sama bopp parce que dafa mucc ci ngistal euh, mu bokk nag ci yàq koor euh, sama mbokki ndaw ku ndaa yi léegoo leen nga gis bu koor jubsee dañuy njëkkante hôpitaux yi day fees dell ku nekk di wutal sa bopp maladie bu bees te yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ci xaddis bu leer nañ ñu soloo ko abi huray abi hurayra moo wax mi képp koo xam ne dog nga ci bëccëgu weeru koor te amuloo benn ngant tegewul ci sa kaw def nga bàkkaar boo xam ne moo gën a foor naan sàngara moo gën a foor njaaloo kon mbokk yi dog ci bëccëgu koor rëy na euh, naam mos dañuy seet ni am na benn saxaabi yu boo xam ne yàlla daf ko nag mu jote ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooytu ko ne ko alku yow mi yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu la alak mu ne ko yàlla daf ma natt ma rëccale ba ànd ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor yonent bi ne ko ah def nga njommi nag kon li la war mooy da ngay kafaara da ngay woor ñaari weer yu toftaloo mu ne sallallahu alayhi wa sallam man sama kàttan àggul ci mën a woor wenn weer wi sax daf ma jaaxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da dem kon nga goreel jaam mu ne ko yow mi yàlla yónni sama liggéeyu kër sax sama jabar naa moom ñoo koy séddoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon demal nga leel juróom benn fukki miskin muy sa kafaara mu ne sallallahu alayhi wa sallam bi may génn ca kër ga yàlla dogal na añ bàyyiwu ko fa ndeysaan wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ree yombu ko mu yëkkati benn cëggu tàndarma génne ko ne ko demal nga saraxe ko ngir yàlla raxasal la bakkaar bi mu ne sallallahu alayhi wa cëggu tàndarma bi nga ma jox bu fekkee maa ko gën a soxla ki ko war a jox yonent bi ree ba dégéej bi feeñ ida tabassama yaxruju sanayaahu kallu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaana muuñ ba dégéej bi génn da ngay defee ne jamaa moo nekk ci gémmiñ gi moom la sex sallallahu alayhi wa sallam bi ree ba muuñ yëkkati cëggu tàndarma bi jox ko ko ne ko demal te li nga def bu ko defati yàlla jéggal na la ashrafal xalq kon dañuy yëg ne koor màgg na ah, ci jamono sallallahu alayhi wa sallam am na benn yahut boo xam ne dafa nekk ci marché bi yàlla dogal jullit ñi woor yahut bi nekk ak doomam ci palaasam doom ji di lekk bi mu tourné gis doom ji di lekk mu dóor ko ca dóor yi metti ne ko ndax doo jox weeru koor wi xorma sa mbokki jullit yi nga nekk ak ci marché bi ñëpp a woor bi ko baay bi waxee loolu dóor ko ci yàggul dara yàlla dogal baay bi faatu jiitu àllaaxira am kenn ci saxaaba yi ku tëdd gént gis ko ne ko yow doo woon yëhut mu ne ko ah kay mu ne ko ban yiw ak ban tedd nga def ba tax yàlla indi la fii mu ne ko ma ju ma joxoon weeru koor ca la ma yàlla yërëme ba dugal ma aljanna moo tax sallallahu alayhi wa sallam ci yéene gum yéene yow daanañu wax ni ittaqu shahra ramadana fa innahu shahrullah na ngeen wattandiku weeru koor parce que weeru yàlla la te dañuy wax ne mbokk yi ni place màgge wala ni weer màgge wala ni dayo màgge ci topp yàlla soo moyee yàlla bàkkaar ba it noonu lay toll wal iyaazu billahi kon nañu lu ci koor gi xam ne yàllaa ñu ko sant mbokk yi ku ñu jox trois cent soixante cinq jours dagg ci fanweeri fan ne la trois cent soixante lekkal naanal defal yi la dagan yëpp fanweeri fan yi jàpp ko ci lekk ak naan wax dëgg yàlla war nga koo mën a ormaale sa borom may ko ko te mbokk yi bu ñu seetee li wàcce koor war na ñoo xam ne koor du caaxaan sa sayyidina aadama alayhi salaam ci aljanna ja mu nekkoon keroog bi ko iblis man ma ne ba lekk loo ko garab ga ne ko kii mooy sajarul di sa borom dafa bañ nga génn moo tax mu bañ la lekk moo tax mu bañ nga lekk garab gi naa adama witt ca doom ya lekk sayidatuna xawwa lekk ca doom ya moom la mu lekkoon ca doom ya loolu moo ko yóbbi jigéen ñëpp di indisposé maam aadama li mu ca lekkoon wax nañu ne des ni ci biir bi fanweeri fan yàlla ne ko nag soo bëggee ma jéggal la dangay woor fanweeri fan te mbokk yi siise bi tax koor wàcc du coxorug yàlla déedéet junj naa ko sànq ci suñu jataay mooy tazkiyatu nufuus lañu ci yàlla bëggal mooy bakkan bu orienté wu jaar ci yoon ndax nag Muhammadul Bushayri radiallahu anhu dafay wax ne man lii bi raddi jimaaci lxayi min gawaayatiha kama yuraddu jimaacu lxayli bi lujumi mu ne man Muhammadul Bushayri kan moo may delloosil sama bakkan bi nga xam ne dafa regg màmm dañuy wax ne naaru góor góorwu regg bu màmmee gone du ko delloosi jàmbaar doo nga ko mën a delloosi jàmbaar ji nag mooy kan mooy ku yàlla teg loxo kon mbokk yi nañu gën a góorgóorlu ci suñu bakkan nañu gën a góorgóorlu ci suñu ruuxu parce que ruuxu li koy dundal du lekk ak naan bakkan li koy dundal mooy lekk ak naan te dañuy wax ne nag soo bëggee nekk jaamab yàlla bi gën ci jaam ñi mooy deel wuute ak sa bakkan soo ko defee rek yàlla mën na la gërëm euh, maam Adama sunu eh, sunu maam eh, alayhi alayhi bi mu lekk ci doom bi yàlla def ko woorloo fanweeri fan muy woor guddi yi ak bëccëg yi ci woor gi mu woor guddi yi ak bëccëg yi maam Adama ca la ko yàlla jéggale moo tax mu ne ko rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa na lanakunanna min alxaasirin yow yàlla soo ñu jéggalul yërëm ñun danañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy jaam ñu perte ñi kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di ziar bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay ci internet bi di ziar suñu sëriñ euh, suñu kilifa al cheikh alxasan seen ayyadahu llahu wa nasarahu di gërëm bokkam yu baaxi xaaj malik seen di gërëm suñu réalisateurs yi nga xam ne ñoo nekk ci xarala ga ba ngeen di jot ci wax ji wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu